alhamdulillah asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu cosaanu feetu bi Kossy TV cosaanu inna tibaa tasriqu tibaa jikko yi dafay sàcc jikko moo tax boo àndee ku bu yàggee nga am sufiyanke yi ñoo wax ne man taxaqaqa bi xaalatin lam yaxlu xaadiruhu minha ku dundoo xaal ci yàlla ba mu wér ak yow kuy toogaaleeg yow du mucc ci xaal boobu boo toogee ñuy ree sax di xàqataay nga agsi rek fekk ay nit ñu xàqataay da ngay toog rek rek jàpp da ngay ree di wax ba pare door a laajte lu ngeen di ree parce que ñoom dañ laa wax la da nga gis ku toog ci jotaay si ka am ko xaal ba ci kanam keneen xaal ñee dafay toppandoor déedéet toppandoorul dañ koo wàll ndax dafay wàllante jikko yu baax yi dafay wàllante jikko yu ñaan ñi ni di wàllante koo bañ a mel ni moom bul àndal moom lu may bu la wéree ne sa xaal gën naa dëgër xaalam ba moom du la yóbbu ci suufee ngi waaye yow garanti nga ko yóbbu ko sa kawe koo bëgg a mel ni moom it àndal ak moom almaru ala diini xalilihi fal yanzur ahadukum man yuxaalil yentu nee ne nit ki mu ngi ci diiney xaritam xarit nag foofu nu mu ko tuddee doxul rek koo àndal nii waaye koo jaxasoo ndax xalil ci baatab jaxasoo la jógee xaala la mu jaxasoo mu ne ku nekk ci yéen na seet ku mel nan dama ko xaritam yéenay liggéey fay du baay bi si di barahama boo si TV am ngeen jaara bay Dubaay bi ci barxama ñu ngi leen di gërëm ñu leen di